pour dent Rufus quoi 100% œil pour œil dent pour dent Rufus quoi 100% asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Rufisque asalaamaaleykum waa Sénégal tey Bathie Diop ak RSTV tey dañ fi ñëwoon seen émission li fi nekk rek tey ñu ñëw benn quartier boo xamante ne si biir Rufisque la nekk tudd Coxo ñu koy wax guy bënn muy sañu dëkk maam parce que ñun fa la ñu jógee tey ñu am benn problème boo xamante ne muy benn terrain boo xamante ne ñoom fi la ñu yàgg nekk di fa entraîner pendant des années et des années et des années tey mu am kenn ku ñëw bëgg a jël seeni loxo population bi tey ñoom ñëpp ñu taxaw ànd seex waa Rufisque ànd seex ASC yëpp di ko naxarloo di wax ne terrain bi képp ku koy jël ñoom jaral na leen lu ne te ñun loolu duñ ko seetaan ñu si oote autorité Rufisque yi ñu si oote président Macky Sall di ko wax ne affaire bi métti nañu parce que Rufisque ñun des na tuuti dootuñu am espace parce que espace bi jeunesse bi war a nekkee di def seen entrement lépp ñoo ngi koy jël di ko jaay léegi nag tey ñoom ñu jóg ànda ne kenn duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñun nag waa RSTV seen émission li fi nekk rek li fi nekk rek la ñuy wax amul dara loo xamante ne dinañ ko bàyyi après nii nag dinañ ñëw jël seen capitaine ak quelques dirigeants waaw salaamaaleykum maa leen di ziar di leen bëggee di lu initiative bi vraiment wane ngeen ne tëngeej ngeen dëkk quoi te télé li lay jariñ presse li lay jariñ bu say mbokk amee tolof tolof nga ñëw taxawu leen kon ñu ngi leen di jaajëfal d'abord man je le président organisation de l'ASC Guy Béndou te tiis bi dal suñu kaw mën nañ jàpp ne du tiis parce que genre xoxatal la rek parce que lu ne jaar na fi terrain Lebu gi gis nga bërki démb bi mu demee nii ñoom ñëpp bi ñu génnee manko dañ mujjee jël Euh, terrain jox ña doon xëccoo ne ñoo ko moom. xam nga ñu jox leen ñu bàyyi leen ak seen terrain terrain déggoo la même chose terrain njaayeen la même chose terrain ngañ samba la même chose mais ñun suuf la bañ a gis quoi foo am espace. ñu collaborer ak ay nit pour jaay ka après ñu mën a graisser ñooñu nga tool bi fii sunuy maam la woon sunuy maam la woon tool la woon benn maire fi nekk daan ko bay nga parti bële ngay seen ci ginnaaw benn paa moo ko moomoon xoxotal nañ ko ba nangu ko jël ko ci dooleem bàyyi ko tuuti tey tool bi moo fi des fii fi la xale yi fooyee. élèves yi fii la ñuy defee brevet fii la ñuy lépp ay see guy ba na rek entraîné wu fi mm-hmm. tey ay ngeesu ndënku Médine démb boo ñëwoon fii sa yaram bi day daw mm-hmm. équipe yëpp dimanche gi fii la ñuy daje di fo di tàngal seen yaram guy ba bu mënee dem ba am ay pro ñuy dem ba signé di dem ak yeneen équipe c'est mm-hmm. grâce à terrain bi place publique nag kenn du ko jaay gis nga li ñu xëccoo nii nañ delloo seen xel si yàlla yàlla am na suuf si sunu borom moo ko sàkk pour nit ñi ñun ñëpp fii la ñu mujjee ñu suul ñu li ñu xëccoo nii amul benn njariñ xaalis bi day jeex mais sa sa bàmmeel yow yaa ciy tëdd ëllëg lii nag population bi soxla ak kenn nit soxla wax dëgg yàlla c'est diamétralement opposé quoi terrain bi nañ ko bàyyi man li ñu gën a métti nag mooy sunu sunu président commission sportive muy maawa mi ñu convoqué muy xale bu ndaw mu mujjee juddu coxo doon xale bu ndaw bu ñu koy convoqué mais nañ convoqué population bi parce que coxo la quoi mais jël booy bu ndaw jaar si suuf oo ko lijjanti numéro am xamuñu ko joxe numéro am ñu oo ko xam convoqué ko le jeudi le vingt cinq grand intense ñu war a dem wuy dinañ dem massivement nag wuy ji duñ def dara dañ négocier plan B bi waxtaan xam lan lañ ñuy doyee ñu waxtaan mais nag plan B bi buñ si tolloo waaw après nag si la ñuy comprendre ko mais terrain bi ni ñu ko waxee rek ñun waa Tëngéej fii waa Coxoog Ndënkoog ñun ñëpp suñu bakken bii lañ si teg nañ ko bàyyi ak ñun ngir yàlla ak jëmmi Seydina Mouhamed uh-huh. waaw te seeti leneen waaw yéen a ko déggandoo seen émission li fi nekk rek ak Bathie Diop Baye Fallou Rufisque bi dañu oo doomu Rufisque le 25 dañu oo ancien capitaine nu guy bënn le vingt 25 dañu war a ki nga xamante ne moo daan àndaa ama neex di mbër mu mag muy dëkk Tëngéej kon le 25 ñuy oo doomu Tëngéej yëpp ñuy o sportif yëpp di oo autorité yëpp di o nag ñoom seen doom muy Souleymane Ndoye ñoo ngi lay oo le 25 nga ñëw gunge ñu si oote bi nga xamante ne moom la procureur oo Maawa Ndaw dinañ ñëw ay jéego yu am doole quoi ah ah. Souleymane Ndoye def na si ay jéego yu am doole parce que mm-hmm. jël na affaire bi moom en main mm-hmm. xam nga lijjanti ay ay ay ñu mu war a lijjanti wax ak ñoom mm-hmm. xam nga pour pour pour taxaw doomam taxaw ki nga xam ne tëngeej ndax lii dafa war a dakk dafa war a dakk tëngeej parce du fii rek bu teyee coxala bu subaa ngañ sàmbal bu subaa njaayan mais pàkk yi ñu am ni nañu ko bàyyil place publique day am si koñ par la force la loolu mënut a ñàkk waaw nañ ñu dimbaliwaat rek encore yéen a ko déggandoo noonu kon président Macky Sall ndaw yi nga xamante ne tey amuñu xëy ndaw yi nga xamante ne amuñu daara loo xamante ne moo ngi nekk fii si biir Sénégal muy koom amuñu ko muy liggéey amuñu ko pourtant bu ñu yeewoo dañuy sonn mais dañ koy tëniir kon nag li ñu yàlla may sañu kay yi sañu mag yi di fi jaar di réussir di teral seen waajur di teral tëngéej kon nga la waaye jàppale nañu see yàlla tax ñu si oo doomu Tëngéej yëpp di oote autorité Rufisque yëpp bàcc Diop Baye Fallou Rufisque bi moom moo ngi si biir le 25 RSTV kenn du ko fa njiit dinañ dem gunge leen ñu déglu procureur ñu xool fan lay mujje jaajëf seen émission li fi nekk rek ak bàcc Diop baay Fallou Rufisque bi mooy comme li ma leen koy waxee rek man li fi nekk rek. bu Tëngéej meree ma mer bu Tëngéej kontaanee ma kontaan Tëngéej bu jooyee ma jooy bu ñu bëggee ma bëgg seen émission li fi nekk rek moo leen di bëggee di leen siyaar di wax nag Macky Sall te Tëngéej soxla nañ la di wax Macky Sall pourtant nag bi nga bëggee jël président Sénégal ñun waa Tëngéej ñoo la jàppale à 100 pour cent ba léegi gisuñu la ba léegi jaaroo fi dimbali ñu nag sañu terrain bi nga jàpp si te yàlla rek tax jaajëf.